wa in kaanu ndem nekk nañu rijaalan di ay góor yi kese nag juxi la kon defeef afdaluhum ka gën ci ñoom mimmaa ca la nga xam ne yël yi dana sasoog al imaam ilimaan ba wa juxi la te defeef min dooni yi ci yeesam an nisaaw jigéen ña wa sibyaanu xale yee nag muy gone ya min waraa zalika nekk nañ ci gannaaw loolee ilal xiblatu jëm xibla bu fekkee ne ay góor yi kese lañ kon na ngay teg genn góor tegaat geneen tegaat geneen ni ma ko waxee woon léegi waaye dañuy seet kañ defee ne moo ci gën ne yàlla xam ko gën dëgg-dëgg waaye kañ defee ne moo ci gën daal na ilimaan taxaw dend ak moom ñi ci des nag nekk ca kanam kooka ni ma ko leerale woon léegi bu fekkee ne ay gone yu góor am na ci ak gone yu jigéen ak ay jigéen ñu mag yépp mën na ca am jàppal rek ne góor ñu mag ñooy tëdd ba noppi xale yu góor ya topp ca jigéen ñu mag ña topp ca xale yu jigéen ya topp ca te noonu ngay tegalee jëm xibla nga xam day mel ne bu fekkoon ne amoon na ay góor yu mag ay jigéen yu mag ay xale yu góor ay xale yu jigéen kon kay mujj ca xibla maanaam kay gën a féete penku mel ne moo jiite ñëpp xale bu jigéen lay doon waaye nee naa la daraja ji tegaloowul noonu sës gi ci ilimaan bi ilimaan taxaw dend ak moom foofu la daraja ji nekk te góor ñu mag ñi ñooy jiitu xale yu góor ya topp ca jigéen ñu mag ña topp ca jigéen ñu ndaw ña mooy xale jigéen ya mujj ca féete xibla ba tey wala ba sa ayut an yu ci xaloo bu dee fi def leen safan ñuy sàppe waaxidan su di senn wa yu xarra ba te dee fi jegeñal ilal imaam yi jëm ca ilimaan ba afdaluhum ka gën ca ñoom ba tey nee na bu la neexee nga sàppi leen ñoom néew yi nit ñuy sàppee ci julli xam na ngay tëral benn tëral keneen ay tànkam jëm si ci bopp kii tëralaat keneen ay tànkam jëm si ci bopp kooko ñu def ay sàppe noonu loolu ba tey baax na waaye ilimaan day taxaw rek fii ilimaan day taxaw ci tolloog kañ defe ne moo ci gën ko defee yéene daal di jullee ñëpp ñaanal ñëpp wa amma dafnul jamaaxatin daal suul mbooloo fii xabrin ci bàmmeel waahid bu di benn fayu jaxalu def na def aftaluhum ka gën ci ñoom mimmaa ci la nga xam ne yël yi dana sasoog alxibla te xibla maanaam suulandoo mbooloo ci benn bàmmeel nag moom taamuwuñ ko waaye nag bu fekkee ña faat dañoo bari nga xam ne kenn ku ne ñu beral ko bàmmeelu boppam te xaw a metti moom foofa dëgëree gas rek mbaa suuf sa xat sax suuf sa xate itam ci kenn ku nekk bàmmeelu boppam kon ñu suulandoo mbooloo ci benn bàmmeel du aay waaye lu gën daal mooy ndegam béréb ba yaatu na te neex naa gas kenn ku ne ak bàmmeelu boppam rek suñ leen dee boole ci benn bàmmeel nag dañuy seet ka nga xam ne jàpp nañ ne moo ci gën mu nekk ci xibla mel ni moo leen jiite nekk ca kanam ñi ci des nekk ca gannaawam
waman bu fi na koo xam ne sooleef na ko walam yu salla te jullee fut xale ci moom wa wóor ya te suturaaleef ko ba noppi mooy ñu suul ko ba noppi fa innahu naka moom yu salla def na jullee xalaa xabri yi ci bàmmeelam ba nee na koo xam dañ koo suul te jotuñu koo jullee waaye xasuñ ko suul ba àggal kon say boo ñu jullee ko ci bàmmeel ba du aajowoo ñu di ko sulli say boo ñu faj ko jullee noonu ca bàmmeel ba
foofu nag am na teqale bu fekkee dañ koo sang daal di koy suul rek te julleewuñ ko dañuy seet ba xam boobaa léegi war na fee tàmbalee soppiku wala déet bu fekkee ne xam nañ ni boobaa léegi mënu fee tàmbalee soppiku kon dañu koy génne jullee ko ci bitti waaye kenn du ko jullee ci biir bàmmeel ba bu fekkee ne itam xam ne ni boobaa léegi yàgg na yàggaay boo xam ne moom jëmm ji war naa sooy ba dara di satu ca kon dees ko jullee sax ci kaw bàmmeel ba dañ koy far bàyyi noona des na nag bu fekkoon ne moom sënguñu ko sax dañoo jekki-jekki rek suul ko kooku moom bu fekkee xam nañ ne war a guta tàmbalee soppiku dañ koy génne ci bitti sang ko jullee ko bu fekkee xam nañ ne nag tàmbali naa soppiku ñu bàyyi ko noona dees ko génne te it dees ko jullee ca bàmmeel ba
wala yu salla deful jullee nag xalaa man ci koo xam ne xat sulliye jullee foon na ba noppi xale ci moom nee na ku ñu xës jullee benn yoon te mbooloo jullee na ko rek danañu sib ñu di ko jullee waat moo xam mbooloo la moo xam benn bennoo la li fekk na mbooloo jullee ko ko moom danañ taamu mbooloo ñëw jullee ko ni ki bu fekkee kenn daa ñëw rek jullee ko keneen ñëwaat jullee ko kon jullee nañ ko yoon yoon waaye ba léegi ndegam mbooloo defu ko daañu bëgg rek mbooloo ñëw jullee ko
kenn jiite ñu jullee ko waaye bu ko mbooloo xasee jullee nag moom mooy am na ku ko jiite a mbooloo ànd ci rek jeex na kon bëggatuñ nag ñu baam waatati jullee ga wa yu salla def na jullee xalaa ak sari jasadi ci la ëpp ci yaram wa maanaam koo xam ne jëmmi ëpp néewam la ci ëpp jot nañ ko nit ki boo ko defee ñetti xaaj ñaari xaaj ñett teew na mbaalu ko ëpp kon dañuy jàpp ne moom lépp teew ñoo yemoo la fa teew kon dañ koy sang sang ko jullee ko
waaye nag lañu gis ca jëmm ja bu fekkee matul ñaari ceer ñam mbaa mu ëpp ko doonte sax ëpp na genn wàll ga waaye boo ko defoon ñetti xaaj daal lañ ca jot a gis du mat ñaari xaaj ña wax ja gën a wóor mooy kenn du ko jullee dañ koy
waxtu li fa wuuteef na fi salaati ci jullee xalaa misli yëddi ci kem ab loxo war ci li akub tànk maanaam koo xam ne gisuñu ci moom lu may ab loxoom akub tànkam kooku xam nga jamtaloon ne ba tey ma ngay dund ku ñuy wax ibnu maslamata day wax naa moom dañuy jullee loxo ba ak tànk ba te yéene ca néew ba lépp lépp am ñu ne déedéet kenn du ko jullee ndax kooku mën naa am sax boo dee ma ngay dund ndax nit ab loxoom mën naa dagarot mbaa ab tànkam dagarot te teew koy jun dund ba tey
dafa tudd xalaa mislil yeddi ci kem ab loxo mel ne kon day nuróole fekk na dug nuróole dafa mel ne daa waroon wax xalal yeddi rek war rijli maanaam wuute daa am ci koo xam ne ab loxo ku tànk rek lañ gis ci moom ndax des na ko jullee wala des ko jullee wax ja Maalik wax te moom lañ sukkandikoo mooy kenn du ko jullee
baabu ndi ab bunt la fi duxaay ci ñaan li tifli ñal gone wasalaati ak jullee xaalihi ci moom waxus lii ak cangaayam day bëgg a wax nag gone buñ ko dee jullee ñaan ngañ koy ñaanal daa bëgg wax itam ka juddu àndaali bakkan ñu war koo sang ak ka nga xam ne indiwaalu bakkan waris koo sang lu mel noonu da koy wax ci biir moo tax mu boole ci waxus lii ak cangaayam tus nii da ngay tagg xalalaahi ci yàlla tabaaraka barkeel na wa taala te mu kawe watu salli te ngay julli xalaa nabihi ci yonanteem ba muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su ma taqul topp da nga wax lii nee na boo dee jullee gone dañoo bëgg nga njëkk a sant yàlla teg ci julli ci yonante bi dikki boo ne alhamdulilahi rabbil alamin sant nga yàlla boo ci tegee julli ci yonante bi ak noo ko ci tege rek mu daal di baax nga teg ci ñaan gi nag ni allahuma yow buur bi innahu naka xale bi bu dee xale bu góor xabduka sa jaam bu góor la wa bu nu xabdika tey doomi sa jaam bu góor boobu nu amati ko tey doomi sa jébéer mooy sa doomi jaam bu jigéen anta yow xalaq taxoo bindoon nga ko wala saq taxoo te nga wërsëgaloon ko wa anta te yow amat taxoo rey nga ko wa anta te yow tux yi da nga ko dekkal suñu borom xale bii day sa jaam la sa ñaari jaam rek ko jur yaa ko sàkkoon ci sa coobare ba mu neex la tey jii nga jëlee ko fi te it yaa koy dekkal ca àllaaxira allahumma yow buur bi fajxal yàlla na nga ko def li waalidayhi ñeel ñaari waajuram salafan mi ab dawal wa zuxran tey ndaxañteef maanaam te mooy ab denc rek wa faratan tey ab dawal ba tey wa ajran tey ab yool yàlla na nga ko defal ñaari waajuram muy dawalub yiw pay leen ci tuyaaba ju rëy dencal leen ko bañ fekk ko foofa wa saq yàlla na nga diisale bi ci moom mawaasinahum seeni balaas yiw wa ansim yàlla na nga màggale yàlla na nga réyale bi ci moom ujjoorahum seeni yool yàlla na nga leen ci fay tuyaaba ju rëy ba nga xam ne buñ dee peese seeni balaas yiw seeni balaas yiw wat yàlla nga leen ci fay tuyaaba yu bare bare wala taxarim naa yàlla boonu xañ wa iyaahum ak ñoom ajrahu ak yoolam wala taftin naa yàlla boonu fitnaal wa iyaahum ak ñoom ay waajuram baax doxoo ci gannaawam
sunu boroom musibam ñàkk gone gi lu diis la yàlla na nga nu ci fay tuyaaba bul nu ci xañ mukk tuyaaba ba tey waajal ko jullee ko jébbal ko itam yàlla na nga nu ci fay tuyaaba bul nu ci xañ mukk tuyaaba yàlla boo nu fitnaal ci gannaawam nag yàlla bu nu dara gàllankoor ci taxaw temm ci gëm la ak topp la ndax nee nañu fitna moom mooy yittewoo ak soxlawoo lu bokkut ak yàlla boroom bi tabaaraka wa taala
allahuma yow buur bi alxiq yàlla na nga ko yéegal bi saalihi salafil muminina ci aji yi dawalut way gëm ña fii kafaalati ibrahima ci yarug ibrahim nee nañ yonante bi ba muy nekk ca rañaan ma ak yëg ci asamaan sax dafa gis ci asamaan ak góor ay ay gone wër ko mu laaj ñu tontu ko ne ko kooku di Ibrahima ñu boole ko doomi way gëm ñu yàlla ñu nekk fii dañu wax daa bëggoon gone lool yàlla nag féetale ko gone yi gaaw a faatu bu ñu demee foofu moo leen di yore nga ñaanal gone ki nga jullee nag yàlla àggale ko ci gone yooyee Ibrahima yore mooy yàlla yàlla na nga ko yéegal ci doomi jullit ña jiitu woon te Ibrahima yore leen foofee wa Abdul yàlla na nga ko wotteele daaran kër xayran gu gën min daari yi ci këram nga wa ahlan ak ñooñ xayran ñu gën min ahli yi ci ñooñam wa aafi yàlla na nga ko jàmmal min fitnatil xabri ci fitnay bàmmeel wa min xasaabi jahannam ak ci mboolu jahannam suñu boroom gone gi yàlla na nga ko wotteele yàlla na nga ko wecceele kër gu ko dàqal këram gi woon wecceele ko ay njaboot maanaam ay mbokk ak ay waa kër ñu ko gënal waa këram ñu amoon fii ci àdduna yàlla na nga ko musal ci fitnay bàmmeel ak mbugalu sawara xam nga gone moom tàmbale gu ko bindal bàkkaar sax waaye ndegam moom yàlla coobareem lay jëfe rek moo tax ñu ñaanal ko rek moom gone gi yàlla musal ko ci fitnay bàmmeel ak mbugalu jahanam daqool da nga wax daalika loolee fii kulli takbiratin ci bépp kàbbar ñaan gi nag nee na saa yoo waxee allahu akbar da ngay jàng ñaan googu dellu waxaat beneen allahu akbar dellu baamooti ñaan gii ba àgg ci na kàbbaru ñeenteel ba nag wa taqul da nga wax ba dara rabihat ci gannaaw kàbbaru ñeenteel ba léegi nag boo ne allahu akbar mi am ñeenteel nag moom doo baamu ñaan gii day am ñaan goo jàng mel ni mooy taaya mooy lii mu ci teg allahuma yow buur bi ixfir yàlla na nga jéggal li aslaafi naa ñeel sunu way dawe wa afraatina ak sunu way dawe ba tey ñaari baat ñoo bokk maanaa wali man ak ñeel ka nga xam ne sabaqanaa jiitu woon nañu bil imaan ci gëm allahumma yow buur bi man képp koo xam ne ah yey taxaw dundal nga ko min naa ci nun fa ah yi yàlla na nga ko dundal xalal imaan ci gëm wa man koo xam ne tawa fay taxaw faat nga ko min naa ci nun fa tawa faxu yàlla na nga ko faat xalal islaam ci islaam wax fir yàlla na nga jéggal lil muslimina ñeel jullit yu góor yi wala muslimaati ak jullit jigéen yi wala muminina ak way gëm yu góor yi wala muminaati ak way gëm yu jigéen yi al ahyaay ñe di way dund min xuj ñoom wala amwaati ak way faatu ya summa tusallimu topp da nga sëlmal nag foofu ñaan ngay ñaan ci jullee gone boo kaabare kaabaru ñeenteel ba moo tàmbalee ci allahuma jooju yàlla yàlla na nga baal mboolem ñi nga xam ne ñoo nu jiitu si foofu ci àllaaxira ti gëm la ñun ñii koo ci bàyyee ni muy dund yàlla na nga ko saxal ci gëm la ak topp la ko ñun ñii koo fi jëlee di ko faat yàlla na nga ko faat ba tey ci lislaam maanaam mu ànd ak gëm gu rafet ak yaakaar ju rafet te it yàlla na nga jéggal mbooleem julli ju góor yi ak julli ju jigéen yi jéggal mbooleem way gëm yu góor yi ak way gëm yu jigéen yi ña ca faatu ak ña ca dund ñëpp rek jéggal leen daal di sëlmal nag loolu mooy julli gone ba tey nag du ñu takk ne faaw rek nga wax ñaan sàngam ñaan goo wax rek mu baax boo waxee gii mu wax ni baax na boo waxee geneen baax na ñaan gi moom jëmi ñaan gi rek boo ko defee mu baax ñaan goo jàng rek mu baax wala yu salla deful jullee xalaaman ci koo xam ne lam yastaxil la takkuwut saarixan mbir muy aji xaajo maanaam koo xam ne dafa judd te indiwaayul bakkan ko kenn du ko jullee dañuy seet rek bu fekkee taq na deret ñu raxas ko ba mu set ëmb ko ci morso daal di koy suul rek noonu bu taqee deret nag raxas gi ñu ko raxas ci ba mu set moom sopp nañ ko sib nañ ñu bàyyi ko noonu rek bañ ko raxas deret ja sàng gën a am ak suul ga moom lu war lay doon maanaam muur ko ak ab morso ba noppi suturaal ko nag suul ko moom mënta ñàkk wala yor yi su du doon wala yuura su tuddee fu ko doon ku mel noonu nga xam dafa judd nag te àndaalul bakkan moom ci boppam du doon mais ne bu fekkee am na ko jiitu woon ku war a doon doon waaye moom mu judd andiwul bakkan bu fekkee bàyyi doon nañ ko fa cër itam cër bi nañ koy miraasaat jox ñu njëkk na doon waaye moom kenn du ko jox cër moom ci boppam itam kenn du ko doon jamono yi nekkee ci biir bi yaayam bu fekkee am na luñ ko mayoon mbaa luñ ko saraxoon su boobaa ba tey kenn du ko doon kon buñ ne kenn du ko doon rek jàppal ne ka ko mayoon dara ca ba mu nekkee ci biir bi yaayam wala ka ko saraxoon kooku la ñuy delloo jëmmi la may woon mbaa la mu saraxe woon wayu kuréexu def na sipp ay yudd fana bu dee fi suul asiqtu pér fi dóori ci kër yi pér nag mooy ki nga wax léegi ku judd te andiwul bakkan rek wala njublu ci pér ku judd te andiwul bakkan doonte sax bind ba mat na waaye andaalul bakkan daal moom dañ wax nañ koy raxas rek muur ko suul bëgg nañ yóbbu ko ci armeel yi ci àll ba te dañ koo suul ci kër ya
loolu nag moo ne bu dee ci aada wala fi mu daañu ko def di ko suul ci kër ga waaye loolu tàmmuñ ko ñu bëgg rek ñu yóbbu ko ci àll ba ca armeel ya wala ba sa ayut an yu xas ci la bu sangee an ni saaw jigéen ña asabiya xale bu góor ba asaxira bay aji ndawe ibna sitti sini na doomi juróom benn at aw sabihin ba juróom ñaar
daa wax ne xale bu góor boo xam ne daa toll ci juróom benni at jëm juróom ñaari at ba ci juróom ñetti at sax jigéen mën na koo sang te fekk jigéen ñi jaambur mën na koo sang te sax fekk góor ne moom nekk fa du wàññi dara su boobaa it du aajowoo ba mu koy sang muy sang awra ja ndax sañ naa xool awra ja buñ nee jigéen ñi jaambur nag xam nga ne kon araamante ba moom waxaale wuñ ko ndegam jigéen ñi jaambur ji mën na koo sang araamante ba jëlale nañ ko waaye nag bu xale bu góor bi xësee weesu juróom-ñetti at kon jigéen ñi jaambur du ko mën a sangati wala yu xasilu du sañ a sang arrijaalu góor ña asabiyata xale bu jigéen ba waxtu li fa wóoteef na nag fii xaa ci xale bu jigéen bi in kaanat ndem nekk na lam tablux jotut maanaam matut an tushtaha bu deefee ko bànnee xoo wal awalu wax bu njëkk ba bañ ngaa sang ahab bu moo gën a sopp ilee naa jëm ci nun Malik góor mën naa sang xale bu jigéen boo xam ne day nàmp bu ne day nàmp nag mooy rek ñaari at te matalagul ñett diggante boobu daal moom bu fi xale bu jigéen bi faatoo góor mën na koo sang te du wàññi dara bu demee nag ba am juróom benni at jëm ci kaw kooku mënees naam bànneex ci moom su boobaa nag dana araam góor sang ko mu des nag diggante bi maanaam ba matalee ñetti at jëm ñeent jëm juróom te matalagul juróom benn foofu nag fa lañu wuute wax ja gën a wóor nag mooy waxi ibnul xaasim mooy góor ga du ko sañ a sang góor du ko sañ a sang ci yooyu jamono achab nag moom daganal na ko waaye daal jàppal la gën a wóor mooy góor du ko mën a sang lee mu ne sax wax bu njëkk ba moo gën a sopp wal awalu ahabu nee nañ ahabu jooju dañ koy fireeg war moo tax mu naa wa ahabu fi qawli cheikh yi wal awalu ahabu ilayna lil wujoobi ay
baabun li ab bunt la fi siyaami ci koor wa sawmu chahri ramadaan woor weer ramadaan faridatun farata la nee na woor weeru koor bokk na ci ponk lislaam yi yu saamu def na woor di ru'yati hilaali ngir gis carute la wa yuftaru te deefi dog mooy te deefi wori li ru'yati yi ngir gis terute la kaana moo xam nekk na talaasina di fanweer yow mën ci ay fan aw ci satan ba juróom-ñeent waxi si nag ñaar fukk yow mën ci ay fan
su barax lu amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent nañu séentu terutel ramadaan ba xam daañu ko gisam déet bu ñu ko gisee daal di tàmbalee woor bu fekkee gisuñu ko nag daal di wàññi baraxlu ba mat fanweer door a tàmbalee woor weeru koor wa ba tey bu ñu àggee ca kori ga noonu lay demee su weeru koor bi amee ñaar fukk ak juróom-ñeent nañu séentu terutal korite ba xam dees na ko gisam déet suñu ko séenee mooy buñ ko gisee daal di wori bu fekkee gisuñu ko nag daal di matal weeru koor wa fanweer doora wori nag
fa inahu ma neem nii saleef na alxilaalu terute la fa yaxudd kon dana wàññi talaasina fanweer yow mën ci ay fan min xurrati shahri tàmbalee ci njëlbeenu weer wa allësi wa nga xam ne xablahoo nekk na ci njëkkam su ma yusaa mu topp def na woor te wakka zaalika nag noonee la it fil fitri ca korite ga waaw nee na bu fekkee ne dañoo am ñaar fukki juróom-ñeent asamaan si lëndëm neexut a xam ba xam weer yi feeñ naam feeñut kon dañu matal weer woowu fanweer bu dee ci baraxlu dañ koy motali fanweer door a tàmbalee woor ramadaan bu dee ci ramadaan ca mujj ga ñu am ñaar fukki juróom-ñeent waaye asamaan si neexut a gisee weer yi gisuñu ko daal kon dañu motali ramadaan fanweer door a wori
way yu bay yitu dana fanaanoo asiyaama koor ga fii awali ci njëlbeenam nga nee na nag guddi gi nga xam ne mooy njëkk ci weeru koor wi ci nga war a yéene yéene ji dog fas yéene woor boo xasee yéene ci guddi googu nag moom te amaatoo benn ngànt bu lay tax a dog bu lay tax a ñàkk woor moom mën ngaa doy loo jenn yéene jooje du aajo ngay teewluwaat yéene ci guddi gu nekk bi ñu guddi gi nag mooy tàmbalee fa jant bi soyee ak fajar fenk diggante boobu mooy guddi gi foofu ci nga war a yéene yéene ji dogu su fekkee da ngaa xamul dara ci weer wi jàpp laa woor ba fara fajar fenk mbaa bët set nga doon xam ne ah weer yi kat feeñ na biig bu dee ramadaan na ngay jàpp noonu bañ rek bañ a naan te du tee nga fay bés booba ndax amoo woon yéene ja nga xam ne yéene ji moom paawu mënu cee ñàkk te yéene ji dogu lay doon te ci guddi ga lay doon wala sa xale yi dee di ko war albayaatu fanaanoo ga fii baq yi yeti yi ca la des ca koor ga daa bëgg wax ne bu fekkee yéene nga ci guddi ga nga njëkk ci ramadaan yéene yéene yooyu day sar ci mboolem weeru koor yi nga xam ne bu fekkee amaatoo benn ngànt bu lay may nga dog maanaam bu lay may nga bañ a woor kon jenn yéene jooju doy na boo demee ba am ngànt la may nga bañ a woor moo xam jël nga ngànt la bañ a woor moo xam jëloo ko nga daal tàmbali nag kon guddi gu nekk nga yeesal yéene boppam ba li feek ngànt lay jeex ngànt lay jeexee boo yéeneetee benn yéene mu doyati sëkk ci guddi yépp booba ngay amaat beneen ngànt wayuti mu dana matal asiyaama koor ga illa layli ba ca guddi ga koor mi ngi tàmbalee fii fajar fenke ba jant bi so diggante boobu mooy koor gi bu jant bi xasee so diggante ba ak fajar di fenkaat moom la nga sañal lépp ci lekk naa nag jote ka ngay séyal yépp da nga ko sañ wa min sunnati bokk na ci sunna taajilul fitri gaawe dogga wa taaxiru suxóor yi ak yeexe xëdd ga bokk na ci sunnay koor gaaw a dog te fekk mu wóor la ne jant bi sona booy nattable jant bi sonaam sowut na nga moytoo dog bu fekkee noonu nga wéy xamaatoo ci lu wóor faaw nga war a fay bis boobu ndegam xamaatoo ci lu wóor bokk na ci sunnay koor xëdd ba noppi yeexee ko nga xam ne fa nga xëddee ba noppi diggante moom ñuy salaatu man nga fee bàyyi daal juróom-ñetti minute mbaa fukk ndax yonent bi ne woon laa tasaalu ummati bi xayrin maa xajjaloo alfitra wa axaroo assuhoora rawaahu alimaamu ahmad sama xeet wi ci yiw ak jàmm la ñu nekk li fee ñu ngi gaawe dog te yéex a xëdd xëdd boo dañoo bëgg nga def ko doon ci sa xiifoo maroo di foo dara itam nga mos dara rek te yéene ca topp sunna si wa in shakka ndéem sikki sàkka na fil fajri ci fenku fajar falaa yakul kon bu mu lekk te bu mu naan tam boole ci bu mu def leneen luy yàq koor doon naa ko wax léegi boo yeewoo ci guddi gi bëgg a xëdd waaye xamoo ba xam fajar fenk na am fenku da ngay jàpp li gën a wóor jàpp ne fenk na bañ a lekk bañ a naan bañ a def dara luy yàq koor soo dëgëree bopp nag léegi lekk mbaa nga naan te gannaaw bi xamaatoo ci lu wóor ne boobu fajar fenkutoon faaw nga fay bis boobu boo ci xamaatee lu wóor ne boobu fekkutoon fajar fenk nag kon baax na wala yu saamu deful woor yow mu chekk bi sub sikki sàkk li yox taata ngir bu dee fi léemtoo bi si ci moom min ramadaan ci ramadaan bi sub sikki sàkk nee nañu mooy barax lu amee ñaar fukki juróom-ñeent te xamuñ ci guddi googee lu wóor ci suba ci ramadaan ci ramadaan la bokk wala ci barax lu la bokk su boobaa kon da ngay bañ a woor bàyyi ba am ci lu wóor waaye boo nee mën naa ko woor rek ndax bu ci bokkee sama jaan wàcc du ma ci fayante kon def nga lu ñu aaya ba noppi te bu bokkee ci ramadaan du tee nga fay ni ñëpp ndax amu woon yéen ji dogu ba tax ma naa waman saamahu ku ko wóor kazalika naka noonee lam yu gis yi du ko doy wa in waafaqahu ak doonte dëppoo naag moom min ramadaan bokk ci ramadaan boo ko wooree ci kaw rek daal maa ngi koy woor ci kaw amul amul ci lu wóor waaye bu ci bokkee man fekk woor naa ko rek kooku day du la doy yaa ngi ñëpp yem wali man ñeel na koo xam ne caa bëgg na saw ma ak kooram tatawu xan ci coobarewu ñu koy wax ngàtt nga añ yëf xala mu def ko bis boobee na nga xam ne moom xamuñu ci guddi ga ba xam weeri feeñ naam déet bëccëg ba ca topp bu la neexee woor ko kooru ngàtt nga mooy kooru coobarewu ngir yàlla rek wa man asbaxa ku xëy falam yakul te lekkut walam yashrab te naanut su ma tabayan topp bir loo ñal ko ne anna dalikal yawma naka boobee bis min ramadan bokkuñ ci ramadan lamu gis yi du ko doy nee na bu fekkee ni guddi gi xamoo woon ne weer yi feeñ na ba nga mën a yéene yéen yi dogu ci guddi ga bi nga xamee nag mosugoo dara lekk goo naanagoo waaye booba ngay door a xam ne rek weer yi feeñoon na biig ko it nee na bis booba du la doy mooy doo lekk doo naan da ngay mel ne ko war ndax bañ a xotti or may ramadaan te du tee nga fay bis booba ba tax mën naa wañum sikk waaye na bàyyi na jàpp mooy na bàyyi xalit ak li walis lekk fii baqiyati yi ca la des ca bisam boobee wa yàqu yi itam koy fay saa yu génn rek yaa ngi ci bëccëgu ramadan rek moom donte fekkoon ne sax nga lekk mbaa nga naan moo nga fekk lekkoo naanoo ñëwee moo da nga daal di bàyyi fi saa sa ndax bañ a xotti ormay weeru koor wi su ko defee nag da ngay fay nag wa isaa qadima ndéem ñibbisi na al musaafiru aji tukki ja muftiran mbir mu muy aji dog maanaam ñàkk a woor daal la bëgg wax aw taxurat wala laab al xaaidu aji bërëg ji naxaaran ci bëccëg fa lahuma ñeel na leen ñoom ñaar al aklu lekk ga fii baqiyati yawmihima ci la des ca seen bis ba ñoom ñaar nee na bu fekkee da ngaa nekkoon ci tukki ba teelaa woor nga ñibbisi fa nga dëkk nag te fekk jant bi sowut xam nga yow wóoroo woon na nga jekk kon na nga yóo rek ci sa bañ a war googee di lekk ak naan fay rek moo lay war waaye kenn la wax ne da nga ñibbisi nga nag léegi bàyyi lekk ak naan déedéet ba tey jigéen bu fekkee dafa amoon dareeti mbërëg mbaa dareeti wasin ba mu tee ko woor mu far laab nag ci bëccëg ba duñ ko wax ne ko ndegam léegi laab nga bàyyi lekk ak naan déedéet day lekk ak naan di rek fay rek lay def waaye kenn du ko bàyyiloo lekk ak naan wa man aftara ku dog fii tatawuhi ci kooru coobareewam nga ñu wax kooru ngàtt nga xaamida mbir mi aju tey aw saafara wala mu tukki fii ci moom fa aftara te mu dog li safar yi ngir tukkeem ba fa xale yi war na ko alqadaaw fay ñene boo dee koor koor goo xam ne yaa ko coobareewu du tax nag nga ne rek maa ko defal saa bopp daal jékki-jékki sañ koo dog déedéet boo xasee dugg lu war lay doon doo ko sañ a dog ci tey lu may nag nga am ngànt loo xam ne moom mënoo ko boole koor gi waaye boo mu ngànt moom ba nopp dog ci faaw nga fay ko ndax ba nga ko xasee tàmbali la soppiku lu war ba tey boo ci doon tukki itam doo sañ a bañ a woor maanaam bu fekkee da nga doon koor kooru ngàtt nga di tukki nag ne ah man kat koor gi maa ko coobarewu rek tax nga daal dog su boobaa faaw nga war koo fay ndax bu nga xasee dugg rek la soppiku lu war. teewul nag jàppal ne muy kooru farata muy kooru ngàtt ngaa ci yem boo waree ba ci biir nga àgg ci ngànt loo xam ne boo dugut dee day war moom nga dog ndax kenn du rey sa bopp bu fekkee ne itam boo dugut da nga am ab cër bu wàññi ko ci yow mbaa cër bu la mënoon du ko mënat ni ki da nga gumba mbaa da nga tax mbaa da nga lu mbaa yooyu itam faaw day war nga dog doonte kooru farata la ndax sàmm sa bakkan ak sàmm cër yi la yàlla dénk warugar la ci yow wayn aftarandeem dog na saa yéen mbir muy aji juum ñu ko wax juubu ci wala fala xadaa deetug fay xale yi di ko war maanaam nag boo dee koor koor coobarewu rek nga dog ca dog boo xam ne tëyoo ko da ngay sàmm sa koor bañ a lekk bañ a naan te du aajoo ngay fay bis booba te da nga am tuyaaba ja incha allah te xilaafil faridati ci wuteeg kooru farata kooru farata nag moom bu dee ci yoonu Malik boo ci juuboo itam du tee nga fay nde sax am nañu topp addis ba bu dee ramadan nga juubu ci maanaam nga dog te teyoo ko it doo ci fayante waaye bu dee yoonu Malik moom bu dee kooru farata boo ci juuboo maanaam boo ko fàttee ba dog ko it du tee nga fay ko wala bas ayit bi siwaaki ci socc ba li saa yi mi ñeel aji woor ja fii ci jamihi nahaari yi ci mboolem bëccëgam ba dafa wax ne boo wooree nag bu la neexee socc waaye nag soccoo bant bu wow moo gën a wóor ndax bant bu tooy soccoo bant bu wow daal moo gën a wóor ndax soccoo bant bu tooy la ko yàq mooy boo muccoo ndox ma rek wan na ko koor gi dog ko wala tukrahu deful sipp la hoo ñeel ko alxijaamatu nàmpatalu illaa xiifata taxriiri ndare ngir ragal gayal gayal jooju nag tawar rek lañ ci jublu daa wax ne boo wooree ci yoonu Maalik moom bañuñu nga nàmpatalu nàmpatalu ci yoonu Maalik yi nekk daal moom ñoom bañuñu nga war wa noppi nàmpatalu lu may nga ragal ne nàmpatalu faaw deret génn te mën nga caa jële tawat mën nga caa jële far faatu su boobaa kon daañu bañ nga nàmpatalu waaye bu fekkee xam nga ne moom mucc rek moo cay xew su boobaa ñoom duñ ko sipp wa man daraxaxoo koo xam not na ko alxay waccu fi ramadan ci ramadan fala qada deetu fay xale yi di ko war nee na bu fekkee da ngaa woor nag a waccu jékki-jékki dikkal waaye du yaa ko sàkku kon nee na du wàññi dara du yàq dara ca koor ga lu may nag nga tey ko wan na dara ca wàcc ma soo ko tey wan ci dara moom koor ga dana dog mhm maanaam daal bu ñu nee boo wooree wàccu wàcc moo xam ne teyoo ko du yaa ko sàkku du wàññi dara ci koor ga day fekk mu wóor la ne dara delluwaatul gannaaw bu mu ñëwee ba ci gimiñ ga waaye bu ko wóoree ne moom am na lu ñëw ba ci gimiñ gi wëlbatiku delluwaat kon bu fekkee delluwaat ga tëyu ko dana fay bis booba bu fekkee delluwaat ga moo ko tey dañ koy jàpp mel ne ku lekk mu war a kafaara
ñu jàppaale foofu ne xaaxtandiku moom bi ñëwoon ba ci catul làmmiñ wi mu mën koo yàbbi bañ koo yàbbi itam daal di koy wann du tax dara war ko ca jooju wax moo gën a wóor ba tey lor yi moom lu mu bari bari doonte sax moo ko dajale ci gémmiñam ba mu dajaloo mu wann ko it wax ji gën a wóor mooy dara du ko ca war du tax fay war ko ca mbaa dara ba tey mënees naa jàpp ne soo wooree te fekk nga amee asma mbaa yooyu mën ngaa jëfandikoo pompe yooyu nga xam ne moom la ñuy woyofale asma bi ba tey jooju wax moo gën a wóor
wa in istaqaa ndem luuju na faqaatem wàccu fa xale yi war na ko alqadaaru fay ga luuju mooy nga sàkk wàccu mi nga xam ne loolu taxawa ci yaa ko def ne mu dugal baaraam ci gémmiñam rek ñoddi mu ñëw